ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci bis bi ba mu egsi fii daanaka du ñu mën a lim ñëpp waaye dañuy tànn ñenn rek ñoo xam ne dañoo jëmmal mbooloo mi ñu tudd seeni tur euh, jaajëfal leen si liggéey bi euh, ñu ci ñu ci jiitu ñu ngi koy commencé si nga xam ne mooy waajuram di euh, Serigne Djily Mbaye di xalifa Samba Paate nga xam ne moo ko dooleel ba mu tollu fii ak rakkam yu baax yi fi toog eh, muy ñoom sëñ Abdou Latif ak eh, sëñ Basiro eh, sëñ Abdourahman mi toog rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkal ma Mapaté yëpp kon famille boobu yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen tatagal ci bis bi di ci bu nu noppee ñu teg ci ki nga xam ne mooy sëriñ Abo Mariana Mbacke ibnu sëriñ Sidi waxtaan Mbacke mi nga xam ni dafa ñëw pour jëmmal bis bi ànd ak rakkam ànd ak magam ju baax ji sëñ Abdou Latif Mbaye ñu ngi nii toog si jotaay bi ginnaaw ñooñu it buñ si jógee am na délégation bu mag bu am solo lool bu jógee ba fa la ñuy wax Kàbbu Gay eh, ki ñuy wax maire bi jiite ko ñu koy wax eh, alaaji Daam Gay mu ànd ak mbokkam mii di alaaji Amadou Gay Setaaleen Gay ak alaaji Ousmane Gay ak alaaji Njaga Daam ak alaaji Njaga Joor Gay Taaleen Gay kooku di commerçant ñooñu ñëpp gis nañ seen taxawaay ci bis bi sëñ boole mu ngi leen di gërëm euh, ñu siy dolli tamit di si boole ki nga xam ne mooy délégation bi jóge fii ñuy wax Malika di waa kër famille ma mbay Gadiaga sunu maam euh, imaam Seydi gay bokk si ñi ko jiite ak président Libaas Gaye ak ki nga xam ne mooy secrétaire am di yuusu seen ak sunu nijaay ji nekk foofu Amar ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ànd nañ si délégation boobu ginnaaw loolu tamit ñuy sant sunu sunu euh, oustaz sunu sëriñ Cheikh Bara Fall mi nga xam ni lu mel nii bu amee daanaka moom moom lañ koy defal te taxawaay bii moom moo waral lii ndax euh, buñ bala nga naan naam neefal olof yi di wax euh, buñ dañee sañee taxaw fii di jàng alxuraan daanaka moom sëñ boole ci ay loxoom la jaar. si wàllu daara ji muy muy ñu koy sant bu baax di lu ñu ko sant rek doyul euh, mu mu ànd ak ay mboqam moom it jóge fee ba Touba di fa taxawal euh, diine lislaam donc ñu koy sant di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram taxawaay bi yokku euh, ñu doole ci tamit ustaas yi ma toogal si jotaay bi sëñ boole mu ngi leen sant bu baax ku mel ni ustaas ba ak ustaas Ahmed Fall mi ñu dendal ak ustaas Silla mi ñu dendal nga xam ne ay wóllëre démmam lan ba pare nekk fi di fi taxawaay taxawaay bu am solo fun ko gis rek gis ko seen wet mu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. ñu boole si tamit Serigne Aliou Seye jóge ba géejawaay moom it di wëllëreem lu yàgg mu ñu ngi rafet taxawaayam fii di rafet taxawaay bi nga xam ne ñu ngi jógee euh, délégation bi jógee Aynoumane 3 ak Mbod 3 am na ñu bëri ñu nga xam ni foofu lañ jóge ñëw ngir bis bi ngir jàppale ko ci lii ci liggéeyal lislaam bii mu nekk. Euh, ñooñu am na ñun ci mën a lim rek muy Cheikh Mbacke Fall ak ku ñuy wax mbay mbuub di ay magam ba pare bokk ci liggéey daara ji lépp daal fu mu taxaw ñu taxaw si ak waa kër sunu baay euh, alaaji daam mbaw ñoom ñëpp njabootam yëpp ñu ngi fi taxaw taxawaay bu rafet ci bis bi ñooñu ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax Serigne Aliou seen ga fàttewuñ ko moom it jóge ba géejawaay moom it yaakaar naa ni euh, taxawaayam rafet na Serigne Thierno Samb oustaz boo xam ne mu ngi nekk ba Louga di fa liggéey lu mel nii di ta di di liggéeyal lislaam fii yor daara foofu sëñ boole nee na mu ngi lay sant bu baax a baax di rafetlu taxawaay bi. Euh, ñuy gërëm aussi ki nga xam ne mooy euh, Cheikh Sadi Diop moom muy muy délégué bokk si délégation bu jógee Kër Mbay Fall nga xam ne ñoom ak sëñ boole démb la woon daara ja fala cosaanoo donc moom mu teewal fi tamit euh, kilifa gu baax ku ñuy wax sëñ Modou Mbacke Maawul Xayaat. nga xam ne dafa am si ay yitte waaye kon daf fiy nekk Oustaz Bassirou Faye tamit université Cheikh Ahmad Bamba bu sëñ si euh, sëñ Moutala Mbacke ñu ngi koy rafetlu jotaayam ak toogaayam si jotaay bu màgg bi donc kàddu yooyu daal lan sëñ boole waxoon ni nañ am ñu si jël tuut ñu sant tuuti ndax xam nañ ni buñ bëggoon lim daanaka fi la ñuy fanaan li olof yi naan lu duuf si nag li xaju ci cin li waaye ku nu tuddul rek nag xam ni du xeebeel wala dara waaye dafa fekk ni te li ñu tax a jóg moo gën a farataal tudd tur moo tax rek waaye ñëpp mu ngi leen di dalal di leen tatagal di leen yëkkati yëkkati kaay bu mu gën a màgg bu nga xam ne moo toog di leen wax marxaban bi ka asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin ahmadi almakin wa ala alihi wa sahabatihi alguri almayamin ixwata aliman ixwata al iradati salima asxaab al fadilati wal maali xaamili sirik diplomasi al ulama al ajilla shuyuxana al aclaam al xuduur al kiraam uxayikum jamiican niyaabatan an cheikh Mapaté Mbaye wa acdaai markazi cheikh Mapaté Mbaye al islaami wa aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ayuha al xaflu al kariim uraxibu bikum fi yawmi fi kitaabikum hada wa fi yawmikum hada wa ucabbiru lakum mada sharafina wa faraxina bi xuduurikum qaa'ilan lakum yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi ismaxuu li ayuha saada an urattila aayaati alshukri waltarxib wa taqdir ila hadihi aljamaacati algafira alladina ataw min kulli fajjin wa sawbin liyashhaduu manaafica hadihi alxaflati alkarima wa yaqtifuu min simaariha alyaanica tazawudan lil ayaami alxaaliya xaqan laqad qatacuu masaafatin baciina bacida wa caanaw mashaqaatin cadida bugyata samaaci aayati aayatin qur'aaniyatin taziiduhum iimaana wa tuqawwi fihim yaqiina wa tucriduhum an illaghwi icraada aw xadiisin nabawiyin yubayinu lahum al axkaama wa yubcidu anhum al aathaam wa yudakkiruhum xaqa allahi fihim wal anaam faqad ajaabu nidaa alxaqi almubiin xiina samicuu ajiibu daaciya allah fa jazaahum allahu xayran ayuha saada faqad dauba acdaau markazi cheikh Mapate Mbaye an yunazimu bayna alfaynati wal uxra xaflatan takrimiyatan li abnaihi wa fi hadihi al aawinati al istisnaiya fa hum fi gaayati alfaraxi walsurur an yaquumu bi ardin bi ardi baadi al injaazaati allati xaqaquuha xilaal al acwaami almunsarima minha sutu'u talaatati nujuumin fi samaai hada almarkaz almaymuun bi xifzi kitaabillah wa haadihi nicmatun mannaha allahu alay alayna wa natamanna an yazida allah wa yubaarik أيها السادة إنه مما لا يخفى على القاصي والداني أن المركز يتضمن كتابا لتحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات وروضة للأطفال ومرحلة ابتدائية تدرس فيها الأولاد العلوم الشرعية واللغة العربية والفرنسية هذا ولا يقتصر المركز على تلقين الأطفال العلوم وتدريسهم فقط بل يربيهم تربية إسلامية تمكنهم على التحلي بالأخلاق المجيدة والاقتداء بالسنة المحمدية الحميدة والابتعاد عن السبل المنحرفة لأن التربية الإسلامية هي كل شيء إذا عدمت في التعليم فلا يبقى فيه إلا القشور والإياذ بالله inna tarbiyata wa taalim kanat muhimmata al anbiya wa rusul ala madal ala madal usur wal qurun yaqulu azza wa jal wa yuallimuhum alkitaba wal xikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin sadaqa allahu alazim wa yaqulu alsadiqu alamin innama bu'istu li utammima makarim al axlaq kullu hada wa dak yadullu ala ahamiyati tarbiya wa taalim fa yalzamu lana nahnu al aba wal ummahat an nahtamma bi tarbiyati awlaadina wa taalimihim li annaha masuuliya manuuta ala aatiqina wa sawfa nusal amaama rabbina subhanahu wa taala wa fi lxitaam nujaddidu tashakkuratina alxaara walxaalisa ila alxuduuri alkiram wa ila awliyaai umuuri altalaba alladina qaddamuu ilayna faladaat falzaati quluubihim kama la nansa acdaa almarkaz bi muxtalafi wazaifihim waa jamia al ula amadduuna yada almusaadati li injaz hada alyawmi alazim nadu wa taala an yajziya aljami wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin xam naa ni di si jiital sëriñ eh, Abdul Qadir Mbay Baay di kilifa sëriñ Mapaate di ko nuyu di jàllale nuyoo ci moom ci kilifa yi fi teew yëpp sëriñ Abo Mbacke ibnu cheikh Sidi Muxtaar ak ki nga xamante ni mooy cheikh Baara di ko nuyu di nuyu mboolem kilifa yi sëñ Abdoulaye Mbacke ak maire bi nga xam ne mi ngi ci biir euh, jotaay bi xam naa ne duñ delluwaat ci lim ñëpp ndax sëriñ cheikh sànq tudd na ñi nga xam ne teew nañ si jotaay bi waaye sëriñ Mapaate la ñuy wuutu fii di wax ci turam am na mbégte lool. mook ñi nga xamante ni ñoom la àndal ci liggéey bu mag bi di di leen sant di leen gërëm di leen yaatal ci bis bi nga xamante ni wunduwul lu dul ngir wane lenn ci liggéey yi nga xamante ni daara ji mi ngi koy taxawal ci jamono ju nekk kon mi ngi leen sant di leen gërëm ci jéego yi nga xamante ni sepp ngeen ko ba ñëw ci jotaay bi xam na coono yi ngeen toggoon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 wala déglu si fi waxi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu nga xamante ni bi ngeen déggee wooteeg yiw gi yéen ñëpp ngeen wuy si kon mi ngi leen ci sant di ñaan suñu boroom mu defal leen ak yiw ci seen wuy bi xam ngeen ni bokk na ci aaday daara ji di daara markazul islaami ak cheikh Mapaté mbay saa yu toogee ak jamono seetlu ci ay xaleem am nañu ci mokkal alquran wala ñoo xamante ni seen njàng sori na lool mu dajale waajur yi ak mbokk yeeg soppe yi ngir wane dara ci liggéey boobu lii nag bokk na ci yooyu nga xam ne da koy organise ngir teral ay doomam ci xale yi nga xamante ni am nañu ci mokkal alquran waaye bii nuy taxawal tey mbégte gi daa gën a yokk ngir ni am na ñetti xale yoo xam ne incha allah ci kanam tuuti di nga leen gis mokkal nañ téere sunu borom subhanahu wa taala te xam ngeen lool lu rëy rëy la doon lu ndaw boroom xam-xam yi toog sama wet toog sama ginnaaw xam nan bu baax alquran ni mu toll ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ko suñu boroom xam ngeen ne 23 ans jàng na ko alquran donte suñu boroom daf ne ko bul yàqamti danan la ko sax danan la ko dégguloo waaye ñaar fukki at ak ñett yonent bi muy tàmbali jàng am na ñeent fukki at jàng na ko ñaar fukki at ak ñetti alquran doogo jeex xale yi nga xam ne suñu borom dogal na seeni at am na si ñoo xam matul fukki at suñu borom defal leen tawféex boobu kon loolu sant yàlla xam ngeen lii xéewal bu rëy rëy la ci daara ji waaye xéewal bu rëy la ci ñi nga xam ne ñooy parents yi xam ngeen ni daara ji nag suñ koy présenté umpul kenn ni am na ci biir daara joo xamante ni pour mokkal alquran kase moo ko tax a jug ngir xale yi mokkalee fa alquran niki noonu am na ci biir itam foo xamante élémentaire maanaam cycle boobu lañ fay jàngale xale yi dañuy jàng franco arab di jàng français ak arab noonu la amee tamit li nga xam ni mooy jardin d'enfants kon yooyu yëpp ëmm na ci biir daara ji moo xam ay góor ak ay jigéen ñoo fay jàngee kon noonu la daara ji di doxee daara ji nag yamul ci jàngal xale yi xam-xam yooyu nuy wax def ko si ñoom nu mokkal ko di ko tari dong waaye dafay teg ci lu am solo mooy yar leen ci li nga xam mooy yaru diine ngir nu mën a am ay jikko yu rafet ndax xam ngeen mën a roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën a sori lool yoon boo xamante ni yoon bu leen jàdd loola. xam ngeen ni yar islaam lépp lu mu manqué rek mooy lépp lépp lu mu manqué dara nekkatu fa ni ci muslu suñu boroom ci jàng boo xam ne amul yarul islaam ndax loolu moo doon euh, mission yenent yi yàlla mos a yoon yëpp mooy yar nit ñi ci lislaam xam ngeen suñu borom wax na ay bërëb yu fasantikoo ci biir alquran di wax ni eh, ñi mu yónni yónniw leen lu dul ñuy xamal leen xikma ak téere bi yenent bi dëggal ko ci ay waxam wax ni li tax nu yónni ko mooy jikko yu rafet yi moo tax ñu ñëpp war nañ ko bàyyi xel xam bàyyi xel bu baax importance bi yar am ak jàngale ñun parents yi nu bàyyi ko xel xam ni loolu responsabilité boo xam ne danañ ko laaj ci kanam suñu borom subhaanahu wa taala xam naa duñu jeexal lu dul ni dañuy yeesal suñuy sant ak suñuy gërëm ci turu sëriñ Bolle ci mbooleem ñi fi teew moo xam waajuru élève la wala kilifa yi fi teew wala soppe yi ñëpp ni wala mbokk yi sëñ Bolle mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñi nga xamante ñoo ànd ak moom liggéey bii ndax liggéey bu tollee fii am na ay jàmbaar yu nekk ci ginnaaw seeni guddi seeni bëccëg nekk ci xale yi di ko si jàppale ñu ngi leen di sant bu baax di sant soxnaam si nga xam moo koy jàppale soxna Isa ak waajuróom bu jigéen soxna Faati Gajaga ak mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi moo xam mbokk yi dañuy bañ a dugg ci lim gi di juum waaye daal sëñ boole daal mu ngi sant ñëpp di euh, gërëm ñëpp ak ñi nga xamante ni seen doole ak seen xalaat seeni xam-xam saa su nekk ni ngi koy def si daara ji mu ngi sant ñëpp di ñaan sunu boom subhaanahu wa mu defal ñëpp jàmm ni ngi gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaye dafa am wëllëreem boo xam ne dafay teew. macha allah wax dëgg yàlla mu bëggoon rek mu sànni kàddu yu te kilifa yi ñu yokk rek moom it mu sànni si kàddu yu gàtt ñu continuer liggéey di jigéenam di di soxna Fall. mu jox ko kàddu rek di doomu bàjjanam di kilifaam di sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina. aouzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabi alamin arrahmani arrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di jaare ñëpp di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp yal yàlla boole jéggal di ñaan yàlla nag weer yu ñu dëgmal nii yal na suñu borom dimbali ci kàttanam ban dugg ci ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilah rabi alamin muy weer wu ñu dëgmal boo xam ne at mu jot ñu koy séentu. muy weer woo xam ne weer bu barkeel la di weer woo xam ne ah, ci lañuy ñu jéggalee di weer woo xam ne eh, ci la buntu àjjana di ubbeekoo buntu àjjana yépp ci la ñu ubbeekoo buntu mbaax yeeg buntu xéwal yépp ci lay ubbikoo di ñaan yàlla nag suñu borom may ñu ñu fekk ko ba dund ko ci jàmm ak salaam dugg ci ci jàmm génn ci jàmm te yàlla nangul ñu ko ba barke ci barke Seydina xam sallallahu taala wa sallam maa ngi leen di jaare sama sang yi nga xam ne samay sang lañu di waa kër oustaz sëriñ oustaz Mbaye doonoon sama nijaay doon sama xarit doonoon sama wóllëre bëggoon ma lool nag fonkoon ma lool ci ak dundam fu ma mas a fekk fu ma mas a nekkit fekk na ma fa wax dëgg yàlla ah maa ngi jéggul maa ngi jaare sama nijaay maa ngi sama nijaay euh, Baye Djili maa ngi jégalu kat sama nijaay Baye Djili laa war a njëkke ndax moom moo fi toog tey doon xalifa Taïba mbay tey jii moom mooy xalifa euh, Taïba mbay waaw ah, ñu ngi lay ziar bu baax Mbaye la ñaanal yàlla nga yàgg fi lool te wér wax dëgg daal yow tam fu ma nekk fekk nga ma fa mosoo tànn xamul sama dara mosoo maa tànn xamul fenn lu ma nekk nekk nga sa fu ma mas a ne fekk ngam fa doo tànqam lu sa njaboot moom wax dëgg yàlla doo tànqam lu sa benn njaboot fu ñu wootee nga teew man mosuma ñëw fenn te teewul fekkuma la sama kër it ma fa mas a wootee da nga ñëw waaw na fi yàlla yàggal yàggal taxawaay bi wéral cër yi bu baax a baax nga yàgg ñoo jiite mbay yàgg fa loolu te wér barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sama yaay fa kii Gadiaga Faat Gadiaga di sunu di sunu nijaay di sunu yumpaañ moom itam ju baax du fi yàgg lool moom itam yàgg jiita njaboot bi yàlla baaxal ko mu mu doon ku yaatu mën a uuf njaboot yàlla nag fi yàggal yàlla yàggal ah, di ñaanal nag ñi ma fi fekk ñëpp mbooloo mi fi nekk yëpp ah, di ñaanal tamit eh, di siyaare sëñ sëñ doomu sëñ bi sëñ as suñu Abo Mbàkke mooy doom sëñ Sidi Maxtaar bi waaw daje nañ fi léegi gisee nañ maa ngi koy waaw maa ngi koy ziare bu baax di ziare ñi fi toog ñëpp di xalifa di kilifa yi fi nekk yëpp maa ngi leen di ziare di ziare yëpp njaboot bi ak mbokk yi yëpp daal ak mboolem ñi fi teew ñëpp rek ñu ngi leen di teew ñu ngi leen di ziare mboolem koo xam ne nag sa doom a ngi fi rek da nga teew rek ngir sa doom maa ngi lay ziare waaw di ñaan nag seen doom yi ngeen fi indi di sàkk ci ñoom euh, ak xam-xam yàlla na suñu borom bi barkeel leen yàggal leen fi ah, ba li ngeen xam ne moom ngeen yéene seen njaboot gi bëgg ko ci ñoom ba war a tax ngeen jël seen njaboot indi ko fii ngir sàkku xam-xam loolee ngeen ci sàkku yàlla na leen ko suñu borom defal li ngeen ci séentu yàlla na ko yàlla defal kii di sëñ boole itam te ne ci daara ji te jiite ko doon tey jii xalifa yi sëñ sëñ sëñ oustaz Mbaye ah, jiite ay rakkam doon it ko mat njiit doon seen xalifa taxawaay taxaw taxawaay taxawee taxawaay bu rafet bii lii rekk mooy seen warteef te lii rek ngeen war a mën a def te ku leen fekkoon ci leneen lu dul lii dana leen laaj yéen li ngeen nekk lu tax ngeen nekk ci ndax seen baay ci lii la daan nekk ci lii la lii la daan dund lii la daan liggéeyee alxuraan rekk moom la xam moom la jàng moom la jàngal njabootam yépp bàyyiwul kenn tey jii koo ci fëgg tey fekk ci dënn mu fees dell alxuraan loolu ngeen xam li ngeen nàmp rek moom ngeen di moom ngeen di tari fi mu ne nii njàngalem alxuraan mi ngeen ne doonul loo xam ne tey lu ñuy sikki sàkk ci yéen dafay lu ngeen dund te seeni maam nag te seeni maam nag la dala ci seeni maam ba egsi fii ci alxuraan rek lañ leen xamal kon lii mënul woon ñàkk ngeen di ko dund mënu woon ñàkk ngeen di ko doxee mënu woon ñàkk ngeen di ko jëfee man naw laa leen lool lool lool lool fonk naa leen lool bëgg naa leen lool lan moo ko waral li ngeen di dund alxuraan te seen bàyyi defoon ko ci yéen ngeen di ko dund di ko jëfe ba nëgëni si bàyyiwu leen ci dara seen bàyyi demul rek ngeen bàyyi seen loxo de ngeen suñu bàyyi dem na alxuraan dañ koy won ginnaaw déedéet xanaa kay seen bàyyi dafay jóge def ci yéen alxuraan ngeen di dundal alxuraan di ko doxal muy dund du dox bu ma yeboo ne alxuraan tànk yi mu yor di dox yéen ci ñi koy doxal yéen ci ngeen bokk ndax alxuraan ay tànk la ñu koy doxal rek mu dox mu yore tànkam di dox ku ko doxalul nag day taxaw ndax alxuraan fa mu nekkoon démb ba tey fa la nekk te képp koo xam ne nag nee nga jullit nga ngay wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah war ngaa dundal alxuraan waaw ndax kat tey jii àddina bi dafa soppeeku jaxasoo na jaxasoo goo xam ne bu nu gëmoon sunu bopp ci alxuraan dimbaliwuñu suñu bopp ci alxuraan tàggatuwuñu sunu njaboot gi ci alxuraan ba ëllëg ñu doon tey ñeen ndaw ñii fi nekk tey taxawee alxuraan ba xale yooyu ëllëg ñu war a mën a taxawee alxuraan yaakaar naa ne eh, lislaam dina sox te tey nag bu fekkee dañuy ne dañuy xeexal islaam mooy lan ndaw ñi ñu jàngal leen alxuraan tàggat leen ci seen tàggat ko seen xol dunduloo leen ko ba nu dund ko ba mokkal ko ba ëllëg ñu mën a wéyal alxuraan gi ngir lan lislaam mën a jëm kanam taxawaay bi ngeen taxaw rafet na lool kàddu yi nag daf ma bett lool de su ma ko waajoo xam naa ni naa ci gën a wax lu gën a am solo lii waaye nag maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm sama sang yu baax yi jëf balaa ñuy jox euh, sëriñ Baara sëriñ Stas Baara dañuy euh, jàllalewaat ay cant yoo xamante ni dafa bàyyikoo ci ki nga xamante mooy Cheikh Mapaté sëriñ boole jëm ci mbooloo mi nga xamante ni wuy si nañ ko ci xale yi liñ doon wane ci alquran di sant ñëpp di gërëm ñëpp mboolem kilifa yoo xamante ni rek teew nañ fi waaye dina si sepp ay jëmm yoo xamante ni ñu ngi liggéey liggéey bu rëy si suuf te bëggunu kenn yëg ko te bëggunu kenn ku tudd seen tur waaye teewul sunu borom dafa wax ni yow wala yéen sallallahu alayhi dafa wax ni ku dul sant nit doo sant yàlla moo tax day rafet bu teewee si jotaay yu mel nii ñu sant leen bu baax ngir lan ngir ñaar mooy lu baax loolu nuy def ñu gën ko yokk ndax lu baax nit ku xam njariñ ba am ëllëg saa su ne danga koy dolli leneen li ci des ñi nga xamante ni gis nañ lu baax lool te bëgg ko mën see roy mën koo def ndax suñu borom dafa wax ni def lu baax des koy def lu feeñ ak lu nëbb kon loolu daa am solo mu ci jiital euh, ñi nga xamante ni ay parents d'élèves lan wax dëgg yàlla di si ñoom la ñuy jaarale sant parents d'élèves yëpp ku mel ni Waly Diouf wax dëgg yàlla di parent d'élèves di jaare si moom di sant parents d'élèves yëpp ci taxawaayam gis na ko saa su nekk ak ki nga xamante ni mooy Abdou Cissé ak Moustapha ñoo ñu di ay jàmbaar donte ñëpp ay jàmbaar lan waaye ràññeeku nan lool ci taxawaay boo xam ne am nañ ko ci daara ji ba mu ngi leen sant bu baax ak si soxna yi itam soxna Faat Sey gis na taxawaayam ak mbooleem parents d'élèves bi jigéen ñi kon mu ngi sant ñëpp day bañ tudd di juum waaye ñëpp lay sant waaye da siy seppi ñooñ rek wane seen taxawaay yu rafet joo xam ne am nan ko di ziyaare tamit oustaz Baba fay nga xam ne teew na si jotaay bii di nitu alquran di sant suñu mbokki longoor yi nga xam ne jóge nañ fi léegi bis bi lu muy xat-xat nu jóge Touba bàyyi seen yitte yëpp ngir jëmmi eh, alquran ak jëmmi mbokk kon ni leen di eh, présenté mbooloo mu baax léegi leen fi jóge di leen sant bi sant kilifa yi moom daal mi ngi sant ñëpp ñëpp ñi nga xam ne wuy nañ ci bis bi nga xamante ni lépp jëmmi suñu boroom moo tax di santaat bu baax kilifaam Baye Djily ci taxawaayam ji nga xam ne am na ko ci njaboot gi di ñaan suñu boroom mu gën a yokk ay fanam gën ko may ak wér di di sant ñëpp daal di delloo ngërëm ak cant itam ñi nga xamante ne ay mbokki daaram lan ñu ànd bu yàgg suñu borom boole leen ñu yëngu ci alxuraan ñu bokkoon nekk ci mawridu zaman ba tey jii ñuy ànd ak moom lépp lu muy taxawal wala lépp lu muy nekk seeni xalaat seeni doole seeni mën-mën du ko fekkee kon lool mu ngi leen ci sant baax di ci tudd al oustaz Ahmad Fall ak al oustaz euh, Ba di leen sant baax rakkam yi nag moom daanaka seen bopp la ñuy defal moo tax du jar sax mu leen tudd ay cant waaye da leen di ñaanal suñu borom mu guddal seeni fan taxawu leen ñoom ñëpp. kum tudd ak kum tuddul muy góor ak jigéen mi ngi sant ñëpp di sant kilifa yi fi teew yëpp euh, kàddu yooyu dane woon nan ko jottali mbooloo mi ngir ne mbégteem dafa euh, jéggi dayoo kon mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ak ñu koy jàppale ci daara ji di oustaz yëpp oustaz Samba ak mbooleem soxna yi nekk ci daara ji mi ngi gërëm ñëpp kon su ko defee jërëjëf oustaz Fall euh, waaw nu jox kàddu gi sëriñ Baara mu am kàddu yu si sànni incha allah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi azza wa jal alqaa'il ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير wa usalli wa usallimu ala almabuusi mualliman wa rahmatan lilaalamin alqaail iqra'u alquran fa innahu ya'ti yawma alqiyaamati shafii'an li ashaabihi walqaaili aydan xayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wa radiyallahu an cheikhina wa xabibina wa murshidina cheikh ahmadu bamba alqaa'il wa man araada alqurba min mawlaahu falyaqra'i alqur'aana laa yansaahu wa qaala muhithan للصبيان يا أيها الصبيان لا تشتغلوا عن الهدى وبالعلوم اشتغلوا واشتغلوا بالحفظ والتلاوة واجتنبوا مجالس الشقاوة وأحييكم تحية كلها محبة وشوق وإجلال تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bi ma sante suñu borom subhaanahu wa taala mu màgg moomu nga xam ni moo ni sama téere bii bu màgg bi nga xam ni nasaxal na bépp téere bu mas a wàcc ci kaw suuf wàcc itam ci ki gën ci ñu ma mas a yónni tànnal naa ko ay gaay mooy ñi nga xam ni tey ñooy jàngalkati alquraan yi sallallahu alayhi wa sallam ni ñooñu ñooy ñi gën ci suuf digle it luy jàng téere bi ndax bu yowmal qiyaamee mooy ki nga xam ni day ñëw di ràmm ay gaayam waaye di sant di gërëm di kañ jàmbaari lislaam ju màgg jooju muy na Ahmadu Bamba mi nga xam ni nee na képp ku bëgg a jege yàlla na nga saxal jàng alquraan waaye mu soññ ndaw yi rëddal leen aw yoon wu jub woo xam ni ci la seen njëriñul tey nekk ak ëllëg ni yéen ndaw ñi bu leen soxlawoo lu dul njub waaye ginnaaw bi ngeen amee njub ba noppi na ngeen góor góorlu ci jàng tey mokkal te wattandiku jataay yi nga xam ni mooy jataay yi texee di kon boo ko xoolee fa tabaarakallah li ñu fi dajale tey loolu rekk la waaye da ngeen a baax li ñu matoon wax lépp wax nañ ko waaye ginnaaw alkaramu la yurad te mooy teraanga di su ko delloo waaye li ñu fi wat li fi mat def lépp def ngeen ko li mat a wax lépp wax ngeen ko xanaa damay ñàmbaas ngir li suñ borom subhanahu wa taala wax ni wa aqimu shahaadata lillah wa aqimu shahaada lillah da seere ngir yàlla am feneen fu mu waxit ni wala taktumu shahaada wa man yaktumha fa innahu aasimun qalbu seere lu am njëriñ bu leen ko nëbb ndax ku ko nëbb sa xol tilim na te ku xolam tilim bu yowmal xiyaamee lu mu def yàlla da koy dëmmooyu muy yowma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim kon bala ma ñëw ci cant yi ñu ma yóbbante damay sant sama cantuk bopp ba noppi muy asalatan an nafsi mu jëmm ji nga xam ni mooy oustaz Mapaté Mapaté Mbaye ci sama kanam la yaroo ma nekk directeuru école waaye maa ngi seere te yàlla seere na ni seere loo xamul sallallahu alayhi wa tere na ko ndax am na benn bis mu dajale ay dongaam te mooy saxaaba yi am yum leen di digal am yum leen di tere bokk na ci yam leen doon tere na ngeen wattandiku bokkale ak yàlla dara waaye na wattandiku rey bakkan boo xam ni bu set wecc la waaye itam na ngeen wattandiku àqi wayjur boobay li muy wax lépp dafa sóonu waaye mu àggee ci na ngeen wattandiku seere lu ngeen xamul dafa jóg diju di ko baamtu di ko baamtu di ko baamtu ba ñépp tiit ni ak a neexoon mu noppi kon lu waaye di seere war na koo xam waaye maa ngi seere ni jëmm ji ci sama kanam la yoroo ba mokkal alquran bu wér bind fa tabaarakallah nekk ca daara ji di jàng alquran ba man ko bu wér waaye dem bañ jox ko fa classe Ahmed Fall ngi nii ak oustaz ba ak ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon ñu nekk ca daara ja ba mokkalal fa lim yu mag a mag a mag sama doom man mii ci la bokk man mi nekkoon directeur am mu yor jikko ju rafet nongoo jàngale nongu ku ko yilif kenn néewu ko bankal sa tànk fa tabaarakallaahu ci noonu la nekk ci noonu la nekk ba jóge fa yor daara ci ndigalu daara ja ñuy ñaan sunu borom defal ko barke may ko fan wu gudd te seere ni képp ku ko jox sa doom mel nga ni yaa ngi jël sa doom yow jox ko Mawdu Zamaan loolu suñu seeres bopp la mu des seeres wayjuram sëriñam xaritam papam alxaaji Njoogu Fall mi nga xam ni moo sos daara joojee te ma nekkoon directeur bi mu nekkoon xaritu waajuram sëñ ba Mbay sëñ ba nekk imaam ca jumaa joojee ca Aynuman 3 di jëmm ju am xam-xam ju sell ju sell ju bëgg lu baax ju dëggu sëñ Njoogu toog nañ ba tàyyi mu ni man de xelam mi daf ma jaaxal bu waxee des ko dindi fa tabaarakallah macha allah yal na ko yàlla dolli yërmande dolli ko leer dolli ko ay xéewal te dana ko def ndax sëñ Touba nee na ku jël gone teg alluwa ci poojam jàngal ko bismillahi rahmaani rahim rek xale bi moom sunu boroom dana ko musal ci sawara musal ñaari juram ci sawara musal ki koy jàngal ci sawara te moom daa mokkal mokkalal ab lim loola ko dem ci masaalik da nga ko ci fekk way juram woowu da koo jëloon teg ko ci loxol alxaaji njóogu alxaaji njóogu nekk ak moom moom boole mii def ko doomam wóolu ko lool lenn ci ay doomam ñu ngi may dégg ñu ngi ci biir jataay bi am na lenn ci ay doomam yoo xam ci loxoom la ko tegoon mu jàngal leen fa tabarakallah kon nee na moom itam mi ngi sant boole di ko gërëm di seereel ñëpp ni daara ji daaraam la tey jii da koo fekk mu dem omra biig la fi jóge waaye dafa wax ni waa daara ji bu kenn des na ñëpp dem yaakaar naa ne oustaz yaa ngi nii Ahmad Fall ma nekk ca direction ba mi ngi nii waaye ay doomam ñu ngi nii yu góor yi ak yu jigéen yi ak lu baree baree baree bari ci njabootam kon seere soosu ñu ngi koy seere mu bàyyi ko ci alxaaji njóogu waaye boole ñu dëkk ak ñoom ñëpp sant nañ ko gërëm nañ ko waaye boole déy na ma ni sama cant gi yow laa ci wóolu yaag Ahmad Fall na ngeen ma ko dellool bàyyi njóogu te xam ni lii lépp du kenn mooma su ma sàggane woon tey ci yeneen laay nekk waaye du ma nekk ci lii nee na muy sant alxaaj Njóogu bu baax a baax moom itam di ko gërëm di ñaan aw fanam gudd ba li mu yéene mu def ko waaye moom it li mu yéene ci moom te moo fi wéy juróom moom it mu defal ko ko loolu itam ëppoon na fi waaye loolu la boole wax waaye bu loolu weesoo itam dañu wax ni ginnaaw képp góor gu réussir boo ko seetloo boo ko seetluwul jigéen a nga ca ginnaawam boole noonee papaam baaxe woon fa tabaarakallah yaayam soxna Faatu Gajaga ku baax la ku yaatu dënn la ku leen jàppale la ci lu ma xam saa su ne mu ma sa waaju nu mu def mbaa mu ngi góor góorlu mbaa nangam mbaa nangam si fii la yendu maa ngi jàkkaarloog moom fa tabaarakallahu moom itam boole sant na ko waaye moom it sant na boole loolu itam ab yóbbante la boo xam ni lu mat a xam la bu loolu weesoo boole waa Mawrul Zamaan yëpp ñoom it ñu ngi lay sant ndax gàccee loo leen boo fa jógee woon doxe beneen doxin bu wuuteeg wi kon danañu rus waaye foo nekk incha allahu taala bu ñu tuddee Mawrul Zamaan xam ne lii choxla la choxla mooy danga nga fa tibbe xal te tabarkalla taal bi mu ngi tàkk moos waaye yàlla na gën a yànji waaye yàlla na nga taal yeneen taal yu baree baree baree bari soo fan yàlla na gudd lool waaye nu ngi sant sarak yi nga xam ñoom nga fa nekkandool muy jiili ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñëpp foofu lañ nekkoon yow ñoom itam fa tabarak ñu ngi leen di sant ndax gis nañu ni ñu la def gis nañu ni ñu la def waaye ñu sant itam sa soxna sa soxna soxna Isa Gajaga kooku it dinaa ci wax tuuti yàlla na yàlla lafal leen cat yàlla musal leen ci yi doge ak yi dabe ndax soxna si man dama koo xam bi muy door a mokkal alquran te nekkagul ci sa kilifteef ñu bari dawoon nañ jëm ci juram ñii ay commerçant lañu ñii ay tukkikat lañu ñu ñi neen nag li may wax nii sa yaay a ngi may dégg yaa ngi may dégg sa baay jii ni mii nga xam ni ca ñu ko doon dox ba indi ko sa kër ci la bokk mu wax ni sama doom jii de ki ma koy jox ku man alquran lay doon ba alquran du fëtt keroog ba mu jógee ca daaray kokki baayam dafa woo mboolem koo xam ne xam na ni mokkal nga alquran woo ay mbokkam ñu teg ko ca digg pénc ma ca malika mu tàmbalee bàqara ba minal jinnati wa naas yi tari ko wan ko ginnaaw moom soxna isa soxna daara dëgg la dafa tari alquran ba mu jeex kon tey soo nee wër nit mu ngi ci wet gi loola itam wax nga ma ni ma sama daara ji bu àggee fi mu àgg ci ñi ko fa àggale ci la bokk jàppale na ma muñal na ma te itam maa ngi jàpp ci wet gi mu jàpp ci wet gi yal na yàlla may leen njaboot yàlla mosal leen ci ndog yi ah, soxna soxna yi soxna yëpp ñu ngi leen sant ndax bi noo ngi toog fii ci taabal ji noo ngi toog fii den ak taabal ji fa tabaarakallah gis nañ jigéen ñi ni ñu bëggee lu baax kenn demut te kenn waxut te seen alal it ñu ngi ko jël di ko ñu ngi ko doon jël di ko indi fii waaye na ngeen xamal ni def ngeen ko fi ngeen ko war a def ndax yowmal qiyaam sunu borom wax na ni balaa kenn séqib jéego lees na laaj ñeenti yëf an maalihi min ayna iktasabahu wa fii ma anfaqa bokk na ci sa alal ji foo ko jëlee ak foo ko dugal waaye bu ñu leen laajee fi ngeen ko jëlee day incha allahu leer na waaye na ngeen fi ngeen ko dugal itam incha allahu leer na te mooy dugal nañ ko ci daara na ngeen góorgóorlu bu baax te xam ne daara jii wax dëgg yàlla laaj na lu bëree bari ab luyaas la courant fi nekk akum ndox dañuy dund te lépp dafa cher jàpp ngeen ci waaye dolli leen wax na ma it ni am na ñoo xam ne bëggul ñu tudd seen tur te fa tabaarakallaahu jàpp nañ ci jàppit bu mucc ayib waaye bukku ñu tudd seen tur ndax <coughs> lu baax boo koy def da ngay mel ne kuy sàcc te bala nga raw mooy da ngaa tàbbi aljanna ginnaaw bu ko yàlla nangoo kon ñooñu fii def lu baax yàlla na yàlla nangul leen yàlla na yàlla nangul leen te yàlla bu ci cat dugg yàlla bu ci ngistal am yàlla bu ci seytaane amu yoon kon daal ci gàttal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi ñëwoon ci suba ba léegi ne fi ak ñi ñëw dellu ak ñi amoon yéene ñëw te mënuñoo ñëw ak ñu yóbbante seenu ñàq ñoom ñëpp itam noonu sant nañ leen ndax daara ji suñu daara la waaye bool la itam sant na leen xolam dafa sedd ba daanaka munta ñëpp gi ñoom di wax waaye nu ngi woo ñëpp dikk leen wallahi daara ji mooy mawdu zamaan daara ji mooy mawdu zamaan daara ji mooy daara ji nga xam ni incha allah diggante bu gàtt sa doom dana amub yar te dana mokkal te dana xam itam li nga xam ni moo xew tey ci àddina bi te mooy kenn du ko nax ci wàllu tubaab loolu daal ci gàttal bëgguma bëgguma gàttal waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko yebale foofu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal seen ñaari wayjur yooyu nga xam ne ñoo leen taxaw ba li mën a am tey muy sëñ Taïba Mbaye wayjuru boole ak sëñ Alassane Gadiaga mi nga xam ne mooy wayjuru Issa mi nga xam ne mooy soxnaam. te ñu jiitu ci yàlla na yàlla jéggal leen fu waay nekk na jàng fatiha bu sell ak fukki lixlaas ak benn salaatu ala nabi ñu yéen leen yool bi kon mën nañoo jàll ci liggéey bi bisimilah. bàyyi ko ba Touba bàyyi fa ay xew-xew yu bare bare bare waaye nag mu ñëw ngir teewe ci bis bi ngir teewe si bis bi kon ñu jox ko su paree nag ñu doog a jox suñu waajur sëriñ jiri mu ñëw. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk yi fii teew ci jataay bi yëpp ñi wuy si wooteeb alquran ak ñi nga xam ni ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa tuddee ñooñu quraan ahlul quraan wa xaasatu mooy sëñ daara yi maa ngi leen di ndokkeel ci bis bu tedd bii ci muy bisub alquraan alquraanul karim di message bi nga xam ni moom la borom bi tabaraka wa teg ci loxol yonent bi sallallahu alayhi ngir mu jëm ci nit ak jinné mbiram lañ doon waxtaane tey moom lañ doon dundal tey kon ci loolu laa leen di ndokkeele sama xel dafa dem ci wax joo xam ni Sëriñ Tuuba moo ko waxoon ñu koy nettali mu siiw lool mu ne bis xelam daa dem ci teral ñooñ alxuraan far alxuraan ne ko lottuma ci teral leen loolu jàpp naa ne lu dal xel la ci ku yëngutu ci alxuraan ndax euh, comme ni ko Serigne baar waxee léegi alxuraan yowmal xiyaam bokk na ci ay liggéeyam mooy day ràmm ñoñam kon euh, bu fekkee dañ ko sàkkal bis ca bis bi ñi fi daje boo xoolee du ëpp ñi nga xam ni ñooy ñoo ci yëngutu ak ñi nga xam ni ñoo ci yëngutuloo muy woy juru ndongo yi ak ñi nga xam ni ñoo wuy si woote boobu kenn ku ci nekk am na am nga wàll ci liggéey bi wax dëgg yàlla ñi nga xam ni ñoo toog ci daara ji di tàggat xale yi di leen jàngal alxuraanul karim lu rëyee rëyee rëy la ñuy def waaye li ñuy def tamit dañ cee wuutu way jur yi waaye wuutu ci société bi yëpp wuutu ci jullit yëpp ndax jàngale alxuraan bu ko ñëpp bàyyi woon ñëpp am bàkkaar ca borom bi tabaraka wa taala moo ne woon inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizuun watt googu nga xam ni moom la suñu borom di wattul boppam alxuraan ñun ñii ci la nekk ci ñun la nekk mooy nekkoon képp ku munta doon ab sëñ daara wala nga doon sëñ daara bu daw comme man war nga doon koo xam ni dangay jàpp ci daara jàpp ci daara nag ay façon yu bare bare bare bare la bu dee jamono jii ñu nekk nga xam ni jamono yi yu euh, liy nekk ci poche am solo lool comme ni ko sëñ Baara tuddee léegi barab boo xam ni bu weer dee dañuy génn ci poche ngir mën a euh, mën a mën a nekkin wa barab boo xam nit ñoo xam ni bu weer dee dañuy génn ci poche ngir ñu mën a dund barab boo xam ni bu weer dee dañuy génn ci poche ngir fay courant ak ndox ak yu ci aju jàpp naa ni kon ñëpp mën nañoo jàpp ci daara tey ndax boo génnee saw ñaar téeméer jàpp nga ci daara ji boo génnee sa junni jàpp nga ci daara ji loo génn jàpp nga ci daara ji kon euh, ak jullit war naa gëm ne kii nekk ci daara ji di ko saytu moom la fa nekkal kon lu yitte yi bari bari bari war naa bàyyi xel loolu nga xam ni moom moom lañ ko wóotoo ca mboot ko waroon koo def kon loolu benn la ci bi ci des mooy woy jur yi nga xam ni ñoo nekk ci daal ji tamit jàngale alxuraan ci boppam euh, dama ko laa wax ba ma nekkee ci ab école ma ne xale bi nga xam ni mooy jàng si ci école bi bu ñibbee ca kër ga kilifaam amut layu man dama jàngut ci mooy jàng kon mënumaa toppatoo am jàngam ma daan leen jox misaal mu gàtt ne leen comme ñoom dañuy faral di am ay kaye yu bokkut sax ay couleur yu bokkut bii day xong bi mboq ñaare niñ koy ni ñuy defaree seen kaye yi ma leen xale bu ñëwee ci kër gi wax ko mu dem jàng gi boo ko gisee mu nekk ci benn kaye ab diir nga ne ko xanaa ba ci des daa bokkut ci njàng mi kon jàpp naa ne mag magum jëmm war naa am xel moo xam ni war na ci toppatoo njàngum doomam ca du laaj muy ak niveau bi mu am ci njàng mi naka noonu way jur yi war nañoo mën a jàpp lool ci njàngum xale bi nekk ci daara ji mooy bu njëkk mag ñi dañ daa wax ni alxuraan wala xam-xam sax bu la neexee si fa am ma da nga koy jox sa lépp mu jox la tuuteem kon bokk na ci ni waajur yi mën a taxawoo def seen warugar ci daara ji mooy fexe ba livrer xale bi xale bi nga bañ koo soxlaal dara nga bañ ko yittewoo ci dara ci bàyyi ko mu jàng lam la la la la njàng ma laaj lépp nga def ko ci jàppale jàppale ko jàppale sëñ daara ba kon yaakaar naa wax yi wax ji wax nañ ko ba noppi rawatina kàddu ak sëñ baara gi dafa sedd sama xol lool day wax ju matale wax dëgg yàlla waaw ko dégg xam ni wax yi ku xam li muy wax la wax ju tege ci yoon ju nosu kon euh, yaakaar naa mën na bañ a sama kàddu li may def rek mooy sant bu baax a a baax suñ boole suñ boole mii ñoo bokk baay suñu ñaaru way jur yi muy sëñ Ali Mbacke ak euh, sëñ Tayba ñun ñëpp dañoo judd moom mii juddu fekk leen ñu ànd ca àndin wa lañ ca xam mooy ne ànd gu mat sëkk la daawuñu taqalikoo ci dara Touba boo leen fa benn néeg leen di fekk benn néeg lañuy dëkk bu ñëwee ndakaaru ci benn néeg la ñuy dëkk loolu mooy li gën a néew ci li ñu xam maa ngi waxtaan ak léegi sëñ sëñ Baye Jili mi mu ne jàpp ne na sax ànd ba weesu na foofu xëy na ca daara ja la woon xëy na dañoo bokkoon daara waaye loolu kon moom laay xeeñtu ba tey te wax dëgg yàlla tamit ñaari njaboot yi e, kóllëre googu dañuy wax ni kóllëre ginnaaw lay féete kóllëre googu ñi ngi koy sàmm bu baax a baax a baax tey jii ca kër ga dafa am euh, suñu rakk boo xam ni dafa am aw xew boo xam ni daa boole di gane la ak di di di di ngénte ba tax euh, ñu ne kon mën naa ñëw waaye wax dëgg yàlla ñi amoon yéene ñëw ñu bari la kon maa ngi sant bu baax a baax euh, mbokk yi di ko tàmbalee ci Baye Jili mi ak njaboot gi yëpp di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw jërëjëf xeelu wér la. loolu ñun ñëpp danoo judd fekk ko yàlla na suñu boroom sàmmal nu ko kon xam naa laata nuy joxaat sëñ Ahmed mu jox baa Jiili ngir mu def ñaan sëriñ Bolle mi ngi yeesalaat ay cantam bu baax ci personnel bi nga xam ñoom la àndal euh, ñëpp nga am ni ngi jàpp ci liggéey bu baax moo xam ñi nga xam ne ni ngi ci xale yi di leen toppatoo saa suñ ñëwee sëñ Abdou Guèye ñoom ñëpp oustaz yeeg soxna yi defar kër geek ñëpp mi ngi leen sant waaye di beral ak cant koo xamante seen ànd daa yàgg lool bi mu nekkee Kër Mbay faal ba fii tey jëmmi sunu borom moo tax muy jëf li muy jëf xam ngeen ni eh, daara moom lu diis la lu metti la waaye xale yi li ñuy xéewaloo saa yu ñu xëyee di mburu saa su nekk moo ko jaayante di ko indi di sëñ Ahmad ture nekk si jotaay bi bëggul ko tudd lool de waaye nag jotaay yu mel ni day rafet nit ki suy def lu baax ñu sant ko si ba tax sëriñ Bolle mu ngi koy sant bu baax a baax di ñaan suñu borom di wax sëriñ Jiiri mu dolli ko bu baax ñaanal ko jàmbaar yooyu nga xamante ni ni ngi jëf jëf ju rafet ci suuf di ko si jàppale di nemmee ko xale yi fi mu toll kon mi ngi koy sant bu baax ndax loolu dafa yàgg bi mu nekkee Kër Mbay Fall ay at la ba ba mu ñëwee fii tamit mu ngi koy wéyale kon yàlla na ko suñu borom defal kattan defal ko mën-mën ba loolu muy def jëmmi suñu borom tax mu dajet ngërëmu suñu borom te saa su nekk mu koy gën a mën kon yeneen jàmbaar yi nga xam ni ngi ci biir itam mi ngi leen di sant bu baax ku nekk nang ca jàppee rek gis na ko yëg na ko mi ngi la ciy sant ngir ni euh, li ngay def jëmmi sunu borom la yàlla na suñu borom fay la si te suñu borom képp kum fay bi gayri xisaab la wax fay goo xamante ni amul deecu deesu ko réglé kenn xamul fu muy yem amul àpp kon mi ngi sant ñëpp képp ku teew si jotaay bi gis na la bu sañoon ñëw ba si yow sant la moo xam ñi am yéene ñëwoon te ñëwunu wala ñi fi teew mi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp yooyu la kàddu yooyu waxoon nañ ko jottali doog a jox uh, sëñ Ahmed mu jox bàyyi ji mu war a ñaan ngir ñu yëkkati jotaay kon ñu bokk ñun ñëpp wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla dolli xéewal comme niñ ko waxee ñu ngi ko commencé woon ci bismillahi rahmaani rahim fas yéene ko tey ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may ñu fekke ko ay ati ati at te yëpp ànd ak wér yëpp ànd ak tal yàlla bu mu nekk suñu mu jug daje bala ñoo jox suñu bàyyi ji ni mu ñaan ñu dalal rek benn mbokk safaa Sare nekk responsable politique di ànd ak euh, Sonko ñoo ngi koy dalal di ko waxal ni bis bi sa bis de ñëw nga ci sa kër kon ñu jox bàyyi ji ni mu ñaan ñu yëkkati jotaay bi ñaan yàlla yàlla may ñu fekk ay ati ati ati yëpp wér yàlla sàmm daara ji sàmm mbooloo mi sàmm xale yi sàmm mbooleem daara yi nekk ci Sénégal salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki lislaam bi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu sell te di leen siyaara nuyoo bi ak siyaara bi ñu jiital ci njabootu Serigne Touba yi fi teew sëñ Abou Mbacke léegi la fi jógee moom Sidi Mokhtar ak sëñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëñ Ali Mbacke moom Cheikh Seynabou moom sëñ Cheikh Mandoumbe ñooñu bu ñu fi teewee rek mel na ni waa kër sëñ Touba gépp teew nañu. di dellu sant itam sëñ Njóogu Fall mi nga xam ni xam-xam bi nekk ci sëñ boole moo ko def ci moom ak sëñ Baara Fall mi ko fi teewal ak njabootub daara ji yëpp bu sëñ Baara teewee rek mel na teewaale na ñëpp di teewaa di sant itam góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku fi teew ku nekk ñu ngi lay sant di la ñaanal sun borom dolli sa jàmm te yokk say xéewal yomb na yàlla yàlla na ko def daara ji képp ku ci jàpp ku nekk itam yàlla na yàlla dolli sa jàmm te yokk say xéewal lu yomb yàlla yàlla na ko yàlla def alxuraan mi tax ñu daje fii ñi raw ñëpp ci lañ ku ba raw ñi raw ñëpp it ñoom moom lañ sàggane bañ raw leen kon nañ ci doon la jàpp bu baax te gën cee farlu bu baax a baax sëñ boole nag li ñu koy ñaanal di ko ñaanal mbooleem ay rakkam ak i magam mooy la nekkoon ci maamam rek seex ma Paate mi ngi ko tudde daf doon wax ni moom daaraam ku fi am ñetti fan rek barke dina la topp sooy ba nga mokkal sooy ba nga ñàkk mokkal loolu lañu loolu la nekkoon ci maamam nag ba mu def ko te ñu teg ci suñu bët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 siraata lasiina anhamta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daaliin amin barakati allahu laa ilaha illa huwa al qayyum laa taxusuhu wala nawmun lahu fi l-ard man saala ji yasfa